أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.
mbokki jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokk yi ñoo ngi ànd ak yéen ci xayaatu saxaaba mooy dundu saxaaba yi ñooñu nga xam ne ñooy asxaabu rasulillah ñoo doon ànd ak yonent bi ñooy ay góor yi waroon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu tolloon ci cent vingt quatre mille tey ñu continuer waxtaan wi di waxtaan kii nga xam ne moo tudd Zeyd ibnul Xaarisata Zeyd mi waxtaanoon nañ ak yéen ci ay tomb ci dundam tey tomb bi ñuy jël ci dundu Zeyd mooy waxtu wi nga xam ne ci la tolloon ba war a takk soxna ziwaajuhu min Zeynab bintu Jahsh Zeyd bi mu waree takk soxna soxna su tudd Zeynab bintu Jahsh la denc soxna waaye balaa loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba Zeyd nangoo bàyyi ay mbokkam ba Zeyd nangoo nekk doomu yonent bi bàyyi baayam bàyyi ndeyam bàyyi ñépp ne yonent bi yow la yonent bi nangu loolu yonent bi da koo goreel ngeen jaam la woon yonent bi goreel ko daal di koy mbaay yàlla yonent bi bëgg koo teral teral gu rëy gu màgg yonent bi bëgg koo defal lu baax mu ne ko yow Zeyd dinaa la utal soxna soo xam ne ci xale araab yi lay bokk góor lay nekk ku am personnalité ku am askan ku bokk ci yax bu rëy laa lay utal du ma la utal mukk soxna su ndaw soxna su màgg laa lay utal loolu nag li ci yonent bi jublu woon mooy dindi dajjiti yàq yooyu nga xam ne moom la araab yi defoon seeni bopp mooy man ci yax bu rëy laa bokk ñun ay gor lañ ñun ay sang lañ ñun duñu sëy ak ñee comme tey ni mu amee Sénégal rek ah man duma sëy ak géwél duma sëy ak tëgg man giir piir laa giir gu set wecc man nangam laa man nangam laa man nangam laa yooyu la yonent bi bëggoon dindi comme Zeyd jaam la woon léegi yonent bi goreel na ko il faut mu tal ko jigéen joo xam ne ci jigéen yu màgg ci arab yi la ba yooyu deñ loolu la yonent bi bëggoon dindi ba nit ñi dootuñu yëg ne am na lu fi nit gëne nit tey li tax dëkk bi mënta dem mooy barrière yooyu ñu teg ba ci jàkka yi sax da ngay dégg diw day jàng na ba am xam-xam waaye mënul jiite lu tax tëgg la lu tax jaam la lu tax nangam la lu tax gan la ci dëkk bi bi mu fi dëkkee yàggut yooyu yooyu te moo raw ci dëkk bi te yooyu amul benn nattukaay ci lislaam yooyu la yonent bi xam moo taxoon mu bëgg a tànnal Zeyd soxna soosu ba affaire yooyu dajjateeku daal di deñ ba jullit ñi dootuñu gëm yooyu jullit ñi war a yëg ne laa fadlun li ahad ala ahad illa bi taqwa kenn gënul kenn nit lu muy gëne nit mooy ragal yàlla amul ku am alal moo gën nit ñi amul ku fi ëpp doole moo mën nit ñi moo moom nit ñi amul kii papaam sëriñ la wala moom sëriñ la moom moom moom nit ñi ñi ay buur la ñoom ñoo moom nit ñi déedéet yàlla nee na inna akramakum indallahi atqaakum ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla yonent bi ne laa fadlun li arabi wala ajam illa bi taqwa yonent bi nee na arab yi gënewuñ ñi dul arab dara lu dul ragal yàlla yonent bi nee na annaasu sawaasiya ka asnaanil must nit ñëpp a yem comme bëñu peñe peñe gis ngeen bëñ yi nu mu mel lépp a tolloo nit ñëpp noonu lañu war a tolloowee kenn gënul kenn tukulóor yi gënuñu saraxule yi saraxule yi gënuñu njaago yi njaago yi gënuñu olof yi olof yi gënuñu séeréer yi séeréer yi gënuñu pulla fuuta yi pulla fuuta yi gënuñu ñëpp a yem ñëpp a yem kullukum min aadama wa aadama min turaab yéen ñëpp ci aadama ngeen bàyyeekoo aadama fan la bàyyeekoo ci suuf ci suuf mbokk yi looloo tax yenent bi alayhi salaatu wasalaam daal di jël soxna soosu tudd Zeynab mu daal di koy may Zeyd ibnul Xaarisata soxna soosu bàjjanu yonent bi moo ko jur bu tudd Zeynab bintu Jaxs buñ la laajee doomu bàjjanam la waaw moom Zeynab bintu Jaxs doomu bàjjanu yonent bi la soxna soosu ñépp a ko bëggoon arab yi ku nekk bëggoon nga ko soxna ndax comme personnalité la ku bokk yax bu rëy la yonent bi saa salaam daal di ko koy ne dama lay may Zeyd mu bañ ne déedéet man kenn duma may Zeyd waaye loolu ci commencement bi la woon bi mu bañee rek alxuraan wàcc yàlla wax ak moom yàlla ne maa kaana li muminin wala mumina ida qada allah wa rasulahu amran an yakunu lahumul xiyara min amrihim wa man yasi allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina warul jullit bu góor warul jullit bu jigéen yàllaa ko yonent wax ba pare ñu ciy teg baat képp ku mooy yàlla mooy yonent kooku de sànku na sànku goo xam ne dootul tegu ci dëgg dootul jaar ci yoon kon ndaw si yàlla wax na ak moom lan la yàlla wax ak moom mooy yàllaa ko yonent suñu waxee dara jullit dégg ko lu mu war a def jëf rek nangu léegi nag bi mu déggee loolu mu daal di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yonent bi ndax da ngaa bëgg Zeyd nekk sama jëkkër yonent bi ne ko waaw mu nangu mu nangu mu ne kon su ma nangoo Zeyd nekk sama borom kër kon de moyatuma yàlla ak yonent nangu naa mu nekk sama borom kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di jox Zeyd ibnu Xaalisata mu daal di yóbbu ci bani Jahsh mu daal di fa yóbbu asara diinaar fukki dërëm xaalis la yóbbu fukk asara diinaar fukki diinaar la yóbbu wa sittina dirhaman ak juróom benn dërëm wa dir an ak benn mbubb koŋ bu ñuy géeree wa ximaaran ak kaala wa isaaran ak benn mbalaan mu rëy rëy rëy wa xamsina mudda min attaam mu jël juróom fukki kilo ci lekk bu ñuy lekk mu daal di koy yóbbu wa ashara amdaad min attamr mu daal di jël fukki kilo tàndarma daal di ko ciy boole lii la jël yóbbu ko ci kër googu ñu may ko jabar lii tey ku ko yóbboon ci kër ndax dañ la may jabar dañ daan caqaj nga naan juróom benni dërëm ak fukki tàndarma ak ñeenti bong bong ak ñetti saaku mbiskit caqaaj lañ lay wax allahu akbar xoolal ndaw si lii la yonent bi jox Zeyd Zeyd yóbbu ko seen kër ñu daal di koy may jabar ñoom ñaar ñu continuer léegi soxnaam la ñuy dund dund bu neex ba ci kanam rek ay histoire commencé am diggante Zeyd ak diggante Zeyd ak ak Zeynab problème commencé mbëggeel gi commencé wàññeeku cofeel gi commencé manqué Zeyd commencé ñëw ci yonent bi naan ko man daal jaaxle naa ci Zeynab Zeynab daal xàmmeetuma ko Zeynab daal léegi man man daal doy na waar man daal jaaxle naa yonent yonent bi ne ko muñal teel sa soxna am sik aleyka zawjak wattaqillah teel sa soxna nga ragal yàlla jàppal sa jabar muñal nga loolu mooy chaque jour góor ak jabar ak jëkkër euh, jiga diggante jëkkër ak jabar bu ñuy am problème nit ñi dañ naan teel sa jabar rek muñal rek xam nga àdduna bi tey daa metti muñal rek muñal muñal ndeysaan yonent bi wax ko loolu waaye su Zeyd demee rek Zeynab gën a yëngal affaire yi gën a rakkaaju waaw léeg-léeg mu ne ko ah xam nga ne yow xam nga ne yow boo ma takkee yonent bee tax de yow xam nga ne man duma sa classe yow xam nga ne man ah cëm ah ndeysaan allahu akbar nga jigéen ndeysaan léeg-léeg jigéen ci ni ko yàlla bindee su la su ëppalee borom këram dara rek daf ko koy jaay da ko koy jaay bu rafetee lool da koy jaay jëkkëram su amee xaalis lool da koy jaay jëkkëram bu amee yenn mbir yi da koy jaay jëkkër ji yàlla nag bu jëkkër ji nekk benn ku faible ku néew doole walla ku xaw a ñaaw ndaw si nag da ciy profitoo ci lool ah xam nga ne yow bu may daagoo ci sa kër gii xam nga ne yow xam nga ne yow gis nga di la indil problème léegi nag noonu la Zeynab doon def ci kaw Zeyd lu tax ndax Zeyd jaam la woon léegi may nañ ko kii te kii ci jigéen ñu mag ñi la bokk ndeke loolu yëpp nag du dara lu dul yàlla moo ko namm yàlla dafa am lu mu bëgg a dindi dafa am lu yàlla bëgg a dindi ci bopp yi dindi ko ci xel yi mooy lan yonent alayhi salaatu wasalaam waxoon na Zeyd yow sama sama doom nga maa la jur su ma dee sax da nga may doon yàlla loolu la bëgg a dindi loolu la ñuy wax atabanni ngeen koy wax ci tubaab fils adoptif ngeen koy wax ci olof baayoo ak doomoo loolu la yàlla bëgg a dindi fekk benn xale rek nga ni kii sama doom la maa ko jur loolu la yàlla bëgg a dindi ndax loolu la yonent bi defoon ci Zeyd histoire bi gën a yokk diggante Zeyd ak Zeynab sëy bi tas bi sëy bi tasee rek yàlla ne yonent bi acca takkal Zeynab xam nga lu garaaw nga ko waa maa ko commencé wax yonent bi dafa takk
Zeynab déedéet soxna Zeynab déedéet doomu doomu déedéet yonent bi daa takk jabaru doom doomam ndax yonent bi boo waxoon
Zeynab doom Zeyd doomam la léegi nag yàlla loolu la bëgg a dindi ndax juru ko est-ce que moo ko jur déedéet waaye moom moo ko waxoon maa la jur rek ndax lan mu wax ko loolu mooy bàyyi nay mbokkam bàyyi ñépp ñëw ci moom léegi nag yàlla bëgg a dindi loolu doomoo la yàlla bëgg a dindi ndax jamono yooyu soo waxee nit sama doom la soo dee da lay donn te léegi miraas dafa war a wàcc alxuraan dafa war a leeral doomoo amatul doom mooy boo jur ci sa geño ci sa ndigg ci sa deret amma fekk kenn rek nga ne ko sama doom la yàlla dindi loolu léegi nag yàlla mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam takkal Zeynab denc ko mu nekk sa soxna moo tax Zeynab da daan tiitaru ci jigéen ñi naan man dong la sama sëy la ñu takkee arche yàlla takk sama sëy man alxuraan daal di wàcc di wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa is taqulu lilladi an'ama allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjak wattaqi llah maa ngi lay fàttali yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam jamono ja ngay wax ka nga xam ne yàlla xéewaloon na ko yow tamit nga jàpp ca nga naan ko téel sa soxna ragalal yàlla jamono yooyu wa tux fii fii nafsika ma allahu mubdi yaa ngi nëbb ci sa xol loo xam ne yàlla dina ko génne lan nga nëbb xam nga ne sëy bi bu tasee yàlla ne la denc ko wa taxsa allah wa taxsa nnaas nga ragal nit ñi te xamoo ne wallahu ahaqu an taxshaahu yàlla rek nga war a ragal waroo ragal nit yow yonent bi lan ngay ragale nit ñi da ngay bañ ñu wax Muhammad dafa takk jabaru doomam loolu ngay ragal man yàlla nga war a ragal wala nit ñi nga war a ragal allahu akbar gis nga de moo tax nit waroo ragal nit yàlla ngay ragal waroo ragal kenn waaw ustaas nekk fi xaar ma def lu ma neex kaaw nekk fi xaar ma def lu ma neex yàllaa ngi fi wala nekk fi yàlla ngi fi nit day ragal yàlla waaye man fii lu ma neex laa fi def waaw loolu jullit du ko def jullit day ragal yàlla ittaqillah xaysuma kunt ragalal yàlla foo mën a nekk soo tàmmee loolu foo dem da ngay ragal yàlla dootul jël contrôleur dootul jël gendarme dootul jël policier dootul jël militaire dootul jël ustaas dootul jël kaaw dootul jël kenn ndax day am ne yàllaa ngi fi man yàlla laa ragal moo tax du ma tooñ même buñ ma tooñee sax ma baalaate ma baal la boo ma tooñee ma baal la yàlla nee na bu ngeen bëggee ma baal leen dee leen baalaate da ngaa bëgg yàlla baal la del baal nit ñi da ngaa bëgg yàlla baal la del baale yàlla nee na kuy baale ma baal ko allahu akbar léegi sunu borom ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waroo ragal nit ñi man yàlla nga war a ragal moo tax yàlla ne fa lamma qada zaydun minha wataran zawwajnaakaha likay laa yakuna ala almuminina xarajun fi azwaji adiyaihim ida qadaw minhunna wataran wa kaana amrullahi mafula nii la yàlla tabaraka wa taala dindee ta banni mooy baayoo wala doomoo yàlla mu ne keroog ba Zeyd pare ci ndaw si yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam denculoo naa la ko maanaam takkal naa la ko muy sa soxna loolu lu ko waral balaa bàkkaar di am ca ña nga xam ne ñoo doon doomoo ay xale ñooñu bu ñu dencoon ay soxna ba wàcc soxna yi ñii dañ naan man kat maa doon bàyyi waaju doon ba duma takk soxna yi mbiru yàlla nag jëf rek kàddu yàlla jëfe rek kon gis ngeen histoire Zeyd ibnul Xaarisata li mu jural jullit yi mooy yàlla tabaaraka wa taala ci la dindee loolu nga xam ne moo xewoon ca arab ya mooy doomoo ak baayoo jël nit def ko sa doom jël kenn def ko sa baay ba boo dee mu donn moom bu dee nga donn yow boo dee mu donn loolu yàlla daal di koy dindi ba mu set wicc léegi sax Zeyd kenn dootu ko wax Zeyd ibnu Muhammad waaye léegi lu ñuy wax Zeyd ibnul Xaarisata kon li gën a rëy ci dund Zeyd mooy lii nga xam ne moo ci xew ba yàlla àddu ci waxoon naa leen keroog ne moom dong mooy saxaaba boo xam ne yàlla tudd na turam ci alquran fan la ko yàlla tuddee ci alquran kan moom a koy wax suratu ahzab aaya bi lan la aaya bi yàlla tudd turu Zeyd ban aaya la mooy aaya 37 yàlla mu ne subhanahu wa taala falamma qada zaydun minha watra gis nga allahu akbar keroog ba zeyd paree ci ndaw si ba fase ko yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam laa la ko denculoo kon loolu moo nekkoon sunu dars tey ma ngi ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu def ci ñun dégg ak topp yal nañu yàlla taxaw taxaw leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu fekkee am na ku ci laaj